amee internautes yi ñuy seetaan dal leen jàmm rek ci Dakar Buzz tey nag ñu ngi fii ci ah, Thiaroye sur Mer askan wi fi yeewoo nag daal di ñàkk ñaar ci seen ay dooma ku ñu wax Daawur fay ak doomam bi am fukki at ak ñeent ñoom nag ndox mi nangu leen ni ki lëndi ba tey amuñ ci ah, benn solution ndax kat la ñu xamle moo di ne rek gisuñ benn yoon participation état bi ci ah, lu ni mel boobaak léegi nag ñuy wër seen ay dooma gisuñu leen dañuy dugg ci biir waxtaan ak njaboot gi xool si yan anam la ñu demee ak lan moo ci seen xalaat sëñ bi maa ngi leen waaw ñu ngi lay fay. yow lan nga ci yaa uh, Daour Faye. waaw Daour Faye sama rakk la ñoo bokk baay. ñoom bi leen ndox mi di uh, nangu fan ngeen nekkoon. non ñun instant boobu noonu ñu diggante Ngor ak Yoff waaw. waaye moom ni mu demee moom doy trop ak ndogal ndax tamit uh, ñun ñëpp ñoo fa nekkandoo woon. pile de ay 4 gaal 5 te amaana nag am na gaal yoo xam te ñoo ko gënoon a féete ci zone de danger bi man mi wax ak yow nii ci laa bokk gaal yi ko féete ci zone de danger yi mais te gis nga ni yàlla def problème ba muy am xëy na ci moom la ko yàlla teg moom mook doomam bi ñoo bokkoon côté bi ñu nekkee woon. ñoo bokkoon genn gaal ñoo bokkoon genn gaal gu ne. waaw. xale bi nan la tudd. xale bi mu ngi tuddee son papa la ko tuddee Baye Sini Faye waaw xale bi à peu mu ngi si ay 14 noo jàngul. actuellement ba tey gisagoo leen koor yi. non jusqu'à présent nii ñu ngi si recherche mais gisagoonu dara de ba fii may waxee ak yow nii léegi lan ma woo téléphone sapeurs yi jotoon nañoo dugg mais géej gi dafa dafa nekk marée haute. léegi dañuy xaar marée basse bi léegi ñu mën ko continuer waat recherche bi. ñu gis ne lii faral na di fi am ah, du du benn yoon ah, du ñaari yoon fii ci Thiaroye sur naka la ci nan ngeen si gisee ak ah, ndax waxtaan ngeen si ak état bi. non état état war la xaar sax ñu siy waxtaan ak moom ndax lii chaque année dafay am Thiaroye géej bu dul caaroy géej territoire du Sénégal bari na fi foo xamante ni. si axlu napp gi dañuy jàkkonte jafe-jafe yu mel nii mais état moom amu si benn taxawaay boo xamante ni ba sawar mun ko siy def waaw état li ñuy xaar si kaa yu mel nii parce que du cas yu mu ngi soogaam parce que le problème en naka mooy ay kaay kaay jaar na fi hmm? te ñi nga xam ni ñooy rescapé yi nga xam ni ñoo siy des. ay soutien de famille lan hmm? amaana si sunu fen euh, lanu yaakaaroon mooy famille seen famille lanu yaakaaroon mooy ñu dem ñëw indi leen jox leen ñu jëfandikoo mais tey ka nga xam ni dem na yàlla téye ko si géej mais yow mi ko toog di xaar léegi yow ak durant quatre mois yi nga quatre mois dix jours yi nga xam ni da nga ko war a muuru toog hmm? yow kan moo lay soutenir hmm? nan waxante dëgg yàlla rek te yàlla rek tax metti na trop. soxnaam nekkin am ci biir kër gi nan la yëgee problème bi. ah problème bi ni ko ñëpp yëge la ko yëge mu métti ko lool ba jusqu'à présent ba tey si fajaru si mujje xamuñu sax lu ñuy nelaw non non actuellement bàyyi na fi ñett waaw. mu ngi hôpital ndigg li moo rëkk nan nga ñu mën a wax ci information boobu. non kooku actuellement moom génn na démb génn na démb. te li tax mu génn sa du coobaree boppam mooy comme li ma wax sànq rek état tegul nu fenn ndax kooku euh, hôpital bi nga xam ne moom la nekk du ma cité tur nag mais hôpital bi nga xam ni moom la nekkoon ñàkk ku ko taxaw moo tax ñu génne ko autorité ñun moom xoolal bee waxi autorité dafa booy sanuy noppa muy yi nu dëkkal ak yeneen a si am amalu nu njariñ seen boppa rek ñoom daal fun nu soxlaa bu élection di waaj a ñëw ñu ñëw wàcc ci terrain bi hmm? ñu wàcc ci terrain bi hmm? nu ay wax ba doyal buñ leen falee ñu fàtte nu ba kaña ba kaña parce que ut lii yu mel nii saa bu fi amee xale yu dëkk bi ñooy volontaire génn seeni propre moyen li si wër yëpp ñu def ko démb am na ñoo xamante bi ñuy dem Ngor pour si affaire recherche yooyu hmm? biñ laajee état yi nga xam ni ñoom ñoo nekk fii te taxawee dëkk bi bañ leen laajee dañ seeni oto yi nga xam ni moom la leen ñii di àpp danoo occupé loolu jaaduwul te ñun ñëpp ñoo bokk dëkk caara yi lii yàlla bu yàlla yàlla bu mu fi amati caara yi moom yàlla na bii nekk bi nga xam ne moo fi mujj si caara yi hmm? mais bu mu amee ña nga xam ni ñoom amaana fan seen doole àgg ñun àggunu fa ñooy nan si def taxawaay bu ma sëkk ba nga xam ni yow mi nga xam ni affaire bi si yow la dal sa sab xol de sedd guy parce que nga nekk si wu naqar nit ñëw jàppale la si mel ni loolu moo la ko gën a bëgg wala moo la gën a soxla hmm? bu keroogee dina wàññi lu bari si yow mais tey ma soxla dara si ki nga xam ni mu ma ëpp doole ak naqar wi man nekkee. Hmm? ma dem mu tontoo ma damay gën a am lu ma metti ci adduna autorité yi ñoom la fi yàlla teg nañuy gëstu ñi nga xam ni dañoo néew doole te ñoom mënunoo dem sans ñun ñun mënunoo dem sans ñoom parce que ñun buñ leen fi tegul ñoom duñ tegu te buñ leen fi jëlee ñu jóge fi kon nag nañu seetaat bu baax lu ñuy defal. bi xale yi def formation mu fekk ma fii ma toog devant tout le monde. jox ma 1000 francs dama naan ci ataaya boo dogee man damay tëmba léegi kon bokk naa ci ñu mujjee gis kii di doomam tamit muy bàyyi siini am 14 ans dimanche ci guddi non samedi ci guddi xale yi dañu ay woon tuur ci sama kër fi ma doon naan ataaya sama jarbaat di ma xeleel ataaya ji la ñëw toog bi mu ñëwee toog di xool rek ba ma ne ko yow mosoo dugg fii xanaa fa la fekk bàyyi mu ngi toog sama jarbaat bi mu ne mos naa fi dugg gañ ndakate boobu daf may tàggu kon ñu sës ci man muy jàmbaar ku nangoo liggéey ku bëgg a njabootam koo xamante ne ni addunaam jëpp daf ko daf ko ñafe laay fa moom mooy xalaatul woon ci addunaam ne moom foofu tey ji dina fa des te moom ci d'après ñin ñi leen wax teeroon na mais doom ji la déggaat ci géej muy kay oo naakaan pàpp moo tax mu daal di fiyaat dem parce que kenn du gis sa doom muy des ci ndox mi nga nekk nga raw moomu dem loolu du ngor xëy na loolu moo ko jàpp ak jom ji mu àndal xam nga kon tey jii am na loo xamante ne ni état dafa war a jël ay responsabilité lii mën nañu chaque année mu répété wu daaw bi fi ministre bi ñëwee ci ñi desoon ci géej gi fii devant tout le monde wax naa ka ka dégguñu xam nga tey ñun bu jëlee gaal yi di dem defi immigration illégale wala clandestine moo xam. état du Sénégal yor aw làmmiñam ratat tat immigration ni immigration naa du ngeen dem taxaw fii jaay bateau de pêche Union européenne ay accord yaa ngi dégg ñun bu ñu demee dem daan dem cinq mètres jàpp kafang wala ñu jàpp yebay wala ñu jàpp njund tey état jaay na géej gi yëpp bu ñu waxee ñu naan ñu accord yi kenn si ñëw ko mais jusqu'à quand dafa am loo xamante ne ni ci àdduna doomu aadama mu ne da nga am ngor. am obligatoire obligation pour dundal sa ask sa sa famille tey boo xoolee état du Sénégal li leen ñor mooy politique politicien bi yaa ngi dégg ñun bu ñu demee nag ba nga xamante ne ne mënata ñoo napp ci géej gi mënata ñoo dem Espagne daf ñuy jaral ñu jaayante ak ñoom rayanteeg ñoom ñàkk suñu bakkan fu mu yem ana tey ñi nga xamante ne ne ñoom ñooy grand sëriñ yi lan nan jariñ lébu gi di ñu dunde di ñu représenté ci état bi amalu ñu benn jariñ les grands sëriñ man maa ko wax yaa ngi dégg kilifa yoo xamante ne teguñu fenn kilifa yoo xamante ne dañuy puus ñuy dee kilifa yoo xamante ne ñu ngi dee ci immigration ñu ngi dee ci géej gi suñuy xale ñu ngi dem di dee. gis nga am na loo xam ne trop c'est trop l'état du Sénégal dafa war a jël ay responsabilité xale yi di dee ci géej gi depuis 2000 ba tey ji xale yaa ngi dee man 2012 ku ma bokkal ndey ak baay caaray géej ñu ngi may dégg Mame Djibril Diouf bota moo ko écrasé fii bota bu ñuy wax Touba fii ci portu Dakar ICPS ñoo ko moom. mujjul fenn six mille six millions doon jox seen ak njaboot barke Dembo Ndiaye ñoom El Hadj Makumba barke Dembo Ndiaye la fi ñoom Habib Baaw jóge barke Dembo Ndiaye la fi ñoom dukkan jóge xale yi di dee comme ay weñ boobu autorité yi ñu ngi seen gundaandaat di ñu wax ay pétrole sàcc yi yoo xamante di alal réew mi ñu sàcc ka ñu indi loo xamante ni solution la dañuy wax ay vingt deux mille vingt quatre ak deux mille vingt cinq xam nga trop c'est trop nan jàppale xale yi kii tey mu bàyyi fi ñetti doom kan mooy jël responsabilité yor leen kuy fay seenam jàng bu feebaree kan moo leen di faj kan mooy dundal famille am du woon taaw moo topp ci taaw bi taaw bi moo toogoon léegi muy duudu fay moom muy dëwur fay comprendre nga yor njabootam yor ci jabaram yor ci yaayam yor ci famille ba mu dërk démb bi muy jóge fii mu ngi naan man dafa war a jënd xaram tabaski pour yar parce que xam na boppam tey kan mooy yor responsabilité boobu dimbali njabootam ay autorité yu tekkiwul dara sàcce yoo xamante ne ni nekkawun ci réew mi lu dul duñ wax dëgg di fen di duul di teg rek du ñu wax la réalité ñun on est prêt pour mourir lu mu leen jaral nag jaral nañu ko parce que du ñu nekk fii ñuy dem ba tey du ñu rey ba pare ñuy dem ba pare amatuñu lu ñu liggéey ñuy disparaître ci géej gi ba pare ñoom ñu nekk ci seen gundaandaat bëgg a tundee bu nan ñu jiiñ ay bu buñ ci yeggee ñoo man je suis a à mourir parce que léegi affaire bi dafa métti dafa métti dafa war a arrêter les gens sont fatigués. bu ñu wax ne dëkk bi na liggéey dëkk bi am na liggéey ñoo sàcc alal ji les autorités je nëbbatuwu ma ragalu ma nan oowi oh dig wala ñu oowi le procureur général je m'en fous de ça parce que ce qu'on fait c'est c'est c'est pas normal il faut la transparence il faut que ñu ñu jox leen seen gëdd il faut que dem jëm ñaa jógal di di tëgg ay sabar jël politiciens yu ndaw yi teg leen fa jénne ay milliards xaw ma cinquante milliards xaw ma quarante milliards jo si siwul ci askan wi xale yi gisuñu loolu y' a de travail il faut s'arrêter nan ñu wax dëgg gi la réalité ñu dem di dee gars yi dañu sonn ñeneen du xaar nag ñeneen di deewaat ñeneen di deewaat ñëw ngeen fi ñëwatu fi amatu saalul wax chaque année xale yi di dee digga ñàkk liggéey ñàkk considération ana tey le grands sëriñ de Dakar ana kilifa yi nga xamante ne ñoo ñoo ñoo ngànk libu gi ñoo ñëpp dañ leen jël jël leen ñu nekk ay nit yoo xam ne tekkiwuñu dara kon je pense que aujourd'hui li ñu war a def mooy ñu xool famille yu mel ni comme Dóor Faye bi xool famille yoo xamante ne amuñ ci luñ jàpp ñu dimbali leen tey kii dafa kii dafa soxla ndimbal nan waxante dëgg ñoom alal ji ñu yor moomuñu ko askanu Sénégal moo ko moom depuis démb ba léegi benn autorité taxawu fi mel ni ay weñ ñoo dee wala ay muus jusqu'à quand kon j'interpelle l'état du Sénégal j'interpelle les grands sëriñ de Dakar xaw ma grand sëriñ ñaar la xaw ma ñetta la je de ça seen bopp nan fi nekkal ñu fi kenn dul seen boppa gëmuñu leen nan ñu wax dëgg mënuñ ñoo wax dëgg ñu jël bu yi ñu leen sol ñu sànni ko fële kon je pense que aujourd'hui Macky Sall na jël ay responsable le ministre de la presse la kii du sax dara tekkiwul dara depuis démb ba léegi kenn gisu ko te saxlawuñu sax mu ñëw fi yàgg na fee ñëw ñu ngi amuñu benn solution ñu ñuy wax ay ay organisation de la presse ak yu ma xamul ak yu ma xamul organisation yooyu jariñu ñu tous amalu ñu benn njariñ nan dimbali xale yi waay xale yi sonn nan ñu nekk fii di wax loo xam ne dara du ci dëgg kii dem tey ji jàmbaar la gëm-gëm la amul masul taxaw di tàllal loxo mais tey ji ak njabootam dañoo soxla ndimbal ba pare nag ñu nekk ci biir géej gi feeñaguñu ba léegi ba léegi nii feeñaguñu bu doon seeni doom la ñu jël ci ay solution yaa ngi dégg man bu ma ci waxee nii c'est parce que moom dama ko xam jàmbar la ku nangoo liggéey la boroomu fit la boroom jom la du tàllal la loxo moo tax muy fanaani ba dee moom doomam mais suñu njiit yi du ñu dara du ñu tous c'est des capteurs de fond c'est des gens yoo xam ne tekkiwuñu dara ay nit yoo xamante ne ni xoolal gëmuñu yàlla gëmuñu yonente ba gëmuñu ne ñoom dinañ am seen guddi gu jëkk ci biir bàmmeel waaye nan dem tôt ou tard kenn ku ci nekk di nga dee. di nga jàkkaarloog sa borom kon am na loo xamante ne dañ jàppale xale yi les gens sont fatigués très fatigués les gens sont pauvres y' a pas d' emploi rien ñu nekk ci jom ñaaju gi rek di ñu sana la koy wax jërëjëf ngeen baal maax jërë ngeen jëf. yaay lay maa ngi bu baax ci li ñu bokk. ak ñoo ko bokk. Lora ki génn àdduna di Daawur Faye di sa doom ak sa sët bi am fukki at ak ñeent si yan anam nga yëgee nakar bi. ah yëg naa ko ci sama yaram lool ndax sama sët bi ku ma déggaloon la ku ma la ku baax si man mu tudde woon ko papaam génn àddina mu tudde ko ka تجمعوا وخلفي جموع ينتمون dëwër fay dëwër tamit sama doom la joo xam ne ji sama doomu xol la ndax waxuñ ñu dara kenn waxuñ ñu dara ah ñoom de waxuñ ñu dara waxaguñ ñu ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi dëkk pompier lii ñu ngi dem di seet ndax ay sapeurs-pompiers nekk nañ fii dëkk nañ fi waaw ñoom daal suba gu ñu xëyee waa dëkk bi dañ jël seen responsabilité toujours gu jot ñu nga ngor di xool ut ay noorkat foofu ñuy noor waaye gisaguñu leen ba léegi déedéet moom mooy sama ñetteel bi doom waaw. ah xanaa tiit rek ndax moom ba muy dem njaxlaf la yóbbaale tàgguma ma toggal leen reer maa toggal ndogu ba mu egg ëmbal ko sama bopp yóbbu ñu fa bu dem géej ba ñu demee ba nga xamante ne ay sept heures jot na noonu ñuy ndogu dañu ndogu ba pare rek mag ji daal di oote téléphone mag ji tamit dafa yor matériel moo nekkoon moom nga doon waxal noonu daal di oote bi mu ootee woo rakkaam jigéen nekk maa ngi ñëw ndax géej gi dafa ngelaw dafa ngelaw nekk te boobu ñun waa kër gi yëpp nañ ko te man comme sama yaram neexul damaa feebar ñu bañ ma kaw léegi bi nga xamante ne moom toog na toog na bu ma naa ba pare ma gis ay benn benn nit di ñëw ci kër gi ma daal na waaw du jóob mi oote téléphone ne géej gi dafa ngelaw te dëwul man gisuma ko lan la kenn waxul kenn waxul fu ne ma gëstu fa ba yàgg ma gis nit ñi de jël benn benn benn mu jékki-jékki rek dal di jóg bu mu ñëwee rek ma dal di tëdd ci lii bi commencé di yuuxu moom mag jooju kooku rek laa dese ci góor waaw léegi bi ma nekkee moom noonu man gëmuma loolu ndax moom gaal gu mag la yor gaal gu bees la te gaal gu mag la ñaari machine yëpp bees tout neuf te moom du cuune yàgg na ci géej ñi mu àndaloon nag kenn ki sama doomu di jaay la moo nekk moom fii ñett ñi ci des ay séréer yu mu àndaloon la ñaar ñi dëkkuñu fi waaye yàgg nañ ci man am nañ fi lu mat ay juróomi at di dem géej si moom dara ma su fee am lu takk walla la leen biñ ma waxee loolu ma xam ne lii loolu la yàlla dogal ma ànd ci muñ nag sant yàlla dama cee muñ ndax xam naa ne moom fa ma féete woon yàlla dina ma féete dafa nekk ak ay rakkam ay rakkam yor seeni doom seen papa génn àddina mu jël doon seen baay xoolal dara lu ma soxla ci suba ba ca ngoon mu nga ca lu ay rakkam yu jigéen soxla si suba ba ca ngoon mu nga ca xoolalu ma dara seetalu ma dara dima toppatoo bu baax damay tëdd ba guddi sama fëkk ma dama yaay jëlal lii nga lekk ka ndax man toujours damay feebar sama yaram neexul toujours damay am feebar ah bi loolu paase ah ñu dal di ñëw biñ ñëwee ñi ka seetu woon ñëw loolu dina nañ tëdd ba suba bu buñ tëddee ba suba ñenn ñi yóbbu nañ leen principal ñaari nit ñu nañu ma wax ne moom moom ak doomam moo ci def ñu ne yóbbu nañ leen principal bi asamaan setee nag laa ci am lu ma reer ne moom ñi mu àndaloon sawe nañu waaye moom sawewul sawewul waaye xam naa ne jéem na effort def na effort boo xamante ne bii saagam bu mu doon teg si ginnaawam dugal na ci portable am ak dantitim ñoom gis nañ ko ñi ko seet woon gis nañ ko buñ ko gisee nag lañ xam ne kii ak i siiréem yu musul mi ndax day diis teg ka yooyu gis nañ ko ak bool bi ma leen yekkaloon añ am internet yaa gis ngeen nag mu ngook euh, situation bi nga xam ne tey moo fi am fii ci Thiaroye sur Mer euh, yaay yaak euh, ñëpp ñi nga xamante ne ñooy njaboot yi nekk nañu si tiis ci dem boobu nga xam ne rek seen doom ak seen sët dem na ko waaye nag léegi nii rek ñu ngi xamal ne ñoo feeñ nañu donc dinañ leen a gën a toppal xabaar yi rek fii ci Dakar Buzz incha allah